suñu càmmeñ yi ñëw ànd ak ñun ñu comme bëgg koo commencé bisu tey jii pour muy egg ndax ñu mën a dem marché dem yóbbu sunu doom yi ñu jàngi école dem dox suñu ay soxla ndax depuis plus d'un mois ngi nii ñun mënuñoo jaar fii fii boo gisoon ni mu mel nii di ngeen xam ne fii kenn mënu fi jaar yàlla nag ak mi nga xam ne moom ak pexeem ak suñu càmmeñ yi ñu def seen participation ñiy joxe cinq benn camion ñiy soxe demi demi camion ba ñu ma mën a agsi fii tey bu mën a defar lii kon ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax te suñu propre moyen nag kenn fekkuñu ci ñoo ko lijjantil suñu bopp cotiseel ko suñu bopp jëndal suñu bopp suñu ay latrine defal suñu yëf yi fii waa non autorité bi nag moom wax dëgg yàlla ñëw na fii ba ñuy defar fële tam première phase bi ñëwoon na ak moyen yi mu am mu jàppalee ko bii tamit ñëw na fi démb ak mooy yi mu am mu jàppale leen ko mais de façon xam naa ne daal li ci gë wóor ba wér moom mooy ñun ñii ñoo defar lii sama sunu càmmeñ yii ñoo participer ak ñun ñi ñoo participer pour defar tali bii nii pour mu àgg fii. dem nañ ci entreprise yi sunu càmmeñ yi dem nañ ci entreprise Ageroute dem nañ fépp fu ñu war a dem dem nañ fa mais amuñu benn loo xam ne lu leen mën a téye la ba tax na nag ñun dañ ne ku dëkk ci dëkk bi war ngaa mën a defar dëkk bi. ñun ñoo ko soxla ñoo koy defaral sunu bopp ba keroog état duñu fa fekk ndax doole bu nekk ku la ci ne ku la ci fekk rek jël mais li nga mën na ko def ba état ñëw fekk la fi ñun mënuñu woon xaar ouverture yi jot ak ñu war a dem di yóbbu sunu doom yi ñuy jàngi école di yóbbu sunu doom yi ñuy dugg te mënuñu mënuñu leen xaar ñu koy def lii ñun ñoo ko war a mën a defar suñu bopp moo tax ñu jël engagement defaral ko sunu bopp ñun génnatuñu woon amuñu accès bu ñu jaar amuñu fenn benn yoon bu ñu mën jaar budul yoon bi té dafa tëju wo mi ngi fi fii taximaan yi feulé rond point HLM fi dañ lay wax 2000 francs 3000 pour ñu dugg fi ndax fi laax bi lañ ko tuddé won ci laax bi won genn mënu ñu won dem fenn jafe-jafe yu metti metti nak lañ doon dund yalla xam ko at yi yépp ni ñu weesu ay jafe-jafe lañuy dund sunu borom oto yi duñu genn duñu dugg ak difficulté lañuy duggé ak difficulté lañuy génné metti na ba fu metti yam mom lañ doon dundu dañuy sante yalla nak bi nga xamantene am nañ suñu chamagne yo xamné japp nañ ci li ba li mëna soti ñogi sante yalla sant di leen gëreem di leen sante di leen ñaanal njabot gi yal nañ dundu ba di leen ko fay parce que lii moom macha allah ku fi jaar di nga ne alhamdulilah ndax ñun fee ñu ku fa jaaroon dañuy wax yéen jaratul ngeen di julli jaratul ngeen di def dara ndax li ngeen def donc buñ ci boolee Fass Conteneur fii macha allah macha allah dañuy sant yàlla bu wér a wér a wér tey ñaanal sunu góor yi sunu càmmeñ yi di leen ñaanal lu ñu bëgg yal na leen ko yàlla defal yàlla yàggal taxawaay bi te dolli seen sutura te bàyyi ñoog ñoom ba ñuy weer di ñu weri yoon bi metti na si doom yi metti na si parents yi comme ni ko sëñ bi waxee léegi. payoor gi ñu waroon inscrire xale yi fi mu toll nii dañoo suspendre inscription yi pour mën a defar yoon bi ba pare. bâtiment bii seen ginnaaw ni école la te dafa am préscolaire ba moyen secondaire donc foog ñu régler cas boobu par priorité foog ñu régler cas boobu ba pare soogay ñëw si laneen maanaam dinañ inscrire waaye lii moo jiitu ba pare yoon bi metti na pas plus tard si biir weer bii nii am na benn évacuation sanitaire bu ñu doon def euh, benn voisine 23h ba minuit mooy la kaar mi ngi ñu fekk rond point face gi parce que ñoo ngi doon def tuuru Rufisque pour génn amuñu accès donc yoon bi metti na torop si ñun muy si suñu doom yi muy si poos yi. parce que foo waroon fay 1000 francs clando duñu lay taxé double tarif léegi ngay fay 2000 rentrée des classes bi bu ñu a jël si sa doom bu leen neexee taxaw si yoon ba ni xale bi na dox à pied ñëw te boobu teewul fay nga ba pare donc gis nga loolu yëpp mu ñuy indi ay jafe la. réseau bi des na parce que su ma jëlee exemple si man nii nii nii période hivernage bi nii par trois semaines yu nekkuñu vidé donc réseau bi moom des na ça manque totalement bien vrai que napp bi day joué mais réseau bi des na assainissement bi moom des na donc li fi nekk si yoon bi nii jàmbaar yi ñoo si nekk di góor góor mooy loolu. donc surtout ñoo ngi lancé mairie Rufisque mairie bu mag bi comme nee nañu tali yi moom dafa xaw a rëy mairie bu ndaw mënu ko yor mais je pense que mairie bu mag bi war na mën a def tuuti benn appui ñu mën see gis suñu bopp. parce que ñun biñ ñëwee Tëngéej ba léegi bientôt 10 ans nii lañ fekkee fii chaque période hivernage nii la nii la ñuy dundee say parent yu dëkk Dakar bu hivernage da nga naan leen bu ñu ñëwati ba hivernage bi jàll. donc autorités yi surtout nañ bàyyi xel que ni am na ay zone yu bees ay cité yu bees fii comme Safa Tako Senelec nañu dimbale tamit ci population bi la ñu ñu defaral ñu yoon